xalifa sàll Baye ñetti semaine ci ginnaaw buñ ko fàttewul ñëwoon nañ fi wax lu mel nii muy xalifa nee na dina déglu waa Yewwi mais dina déglu waa Basam moom nag nee woon na bokk rek nu mën a bokkee baax na. tey nag ñëwaat na ñeneen dialogue bi nag yàggul la 30 la incha allah Khalifa nag nee na waa Basam ba léegi mi ngi leen di déglu waaye Yewwi moom nag liñ ci xam moom moom nee na woon wuyu jiwuñ mm. kon xëy waa Basam lay déglu ndax jàpp nga ne Khalifa daa bëgg a euh, rëccantu bañ a dem wala. waaw jërëjëf son yi bu am na solo xalifa Sall fi mu nekk nii bu demul lu koy yàqal lay doon lu koy wàññi lay doon teyit danañ xam ni kii matut njiitum réew jurutu joxum réew hmm. ndax danañ xam ne carrément li ko tee dem mooy péréction lii loolu mu am péréction xalifa dem xalifa bu demee day wor xalifa bu demee nii ñi naan xalifa nii xalifa nii mu deltu ginnaaw te bu fekkee ni toog na waxtaan ak ay nitam xool xelam xam ne lii mooy li yanu maanaa li mu jàng may ko ko xelam may ko ko li mu def si politique may ko ko mu ñëw ba toll fii mu ni lii laay def nit ñi yuuxu mu daaw jéggi saako yi su boobaa kat. lu ko yàqal dama ne la bu demut laa la wax. waaw bu demut am na droit déglu waa baasam. dégguma loolu de. Hmm? waxuma ne loolu de waa baasam mooy seen kilifa. waa te waa baasam gépp nee nañu d'accord nañ si moom mu dem wuy ji dialogue bi ndax dafa war a bokk si élection baasam yëpp d'accord nañ d'accord nañu ci ñun ñu ah ngi si ginnaawam loolu da information la information la xam nga ko bu baax ñooy mooy seen kilifa déet xaw ma ko nga naan ma lan day dugg baasam nga naan ma xam déedéet xaw ma ko yi bu gis nga politique bii déedéet fii ay baas ak yooyu yëpp ay wax la waa léegi léegi léegi attends léegi li ma léegi li ma la bëgg a wax Sa Ndiogou mi mooy kilifa ak solution TV. waaw am na ci yu muy dugg yoo xam ne mën naa ñëw waxtaan ak yow waxtaan ak man. waaw tekkiwul ni moo yilif rek lu mu bëgg a def da koy def. des fois mu ñëw waxtaan bokkut ak politique. non moo tax man la même waa Basam. bu fekkee ne ñoom moo leen yilif da waxtaan ak ñoom Assane. ma ne loolu bokkut ak politique di leen di yëgal rek. Ah te dañ si ànd ak moom ndax dañu xam ne. ah politique noonu la. ma ne politique noonu la Ablaye Wade ak Ousmane Sonko mi ak mm, président si kenn ku nekk li ngay def da ngay woosam ni neen laa bëgg a def jàppale la nga daal di koy def Mm-hmm. waaye du loo xamante ni da naan lii du fi ñi da nga lii laay def ñu ne la weñ sa loxo ne loolu du fi amee mm-hmm. ñoom ñoo ñoom ñoo kii ñoo noonu la ñuy demee kon nag Khalifa Sall li ma koy sant mooy na dem wuy ji dialogue bi ànd ak ñim war a ànd daal di dem beneen bi it askan wi Khalifa Sall lañ wax ni mooy seen kilifa Khalifa Sall na bind ab communiqué ni yeewi askan wi ñi ñi bëgg a dem nañ ñëw wuy ji ñi bëggut a dem nañu toog waaye bu kenn bind si tur yeewi askan wi naan ñun duñu dem bu kenn dem loolu moom Khalifa Sall mii kilifa gi na ko na bindaat communiqué te turu yeewi askan wi te bañ a bindaat communiqué si turu taxawu ndakaaru hmm. Hmm. mu digal leen daal ñu dem wuy ñoom ñëpp waaye bu kenn communiqué naan ay ndax loolu day indi kilifa gi te xalifa lay dem mais coalition mu yem nag dégg ma ñoom ñoo ne woon yemul fenn dañuy dem ba deuxième tour ñu doog a ñu doog a tase tase dañ ne woon rek élection yi ñëwee ku ne mën naa dem mais lii du tas saa ñu toogee du tas du tas la ñuy wax te tas na bu yàgg tas waaw wax jee fi nekk nii rek léegi nag xalifa Sall si boppam na def communiqué si turu yeewi askan wi mu ni yeewi askan wi kat ku bëgg a dem wuy ji président Macky Sall na dem ku bëggut a dem na toog waaye ñu du taxut ñu xuloo taxut ñu xeex taxut ñi dem ñi dem dañoo ñàkk fayda taxut ñi toog dañoo am fayda mu leeral ko moom leer mooy kilifa gi na jël ay responsabilité am mhm. moom Khalifa Sall waaw joxe hélas pare nga ci yàgg na bu yàgg <laughs> alaaji xalifa ba léegi de euh, maanaam demagul wóoragul bu ñu sukkandikoo ci njaabaa njële gi mooy kat ñee duñu dem nee ma ngay déglu ñale hmm. asan nag ni mu waxee moom nee na moom mooy kilifa ak ñëpp daa war a jóge fee dem du leen tàggu ba pare nit ñee dem leen gën wuy ji ndax noonu la war a deme ah, d' abord xalifa fi mu nekk nii euh, position bi mu nekk nii baaxul hmm. baaxul baaxul ci moom lu tax euh, te waru fi woon a ne li ko ci dugal nag Hmm. ba mu nekk ci position bi euh, man damay jàpp ni Barth moo ko indi ci position bi mu ne maanaam nit ñi dañoo defe nekk xalifaay njiit waaye dafa mel ni Barth mooy njiit euh, ni mu bëgg yëf yi doxee. noonu lay doxee. mais Barth du njiit alaaji. waaw dafa mel ni ni mu bëgg yëf yi doxee noonu lay doxee. Hmm. Euh, xalifa. Hmm. maanaam bu ñu dajaloo ñun ñii. ñu am benn problème sunu problème muudu moo ñu ko teg waaw Moodu mooy problème bi ñun ñi ñuy ànd fu nañu fay dem di jéebaane Moodu parce que moom mooy problème problème waaw ñu jékki-jékki Moodu ne bu ngeen ñëwee ma rek la seen problème yaa ngi dégg te moom mooy problème bi moom d'abord moom mooy problème bi. moom mm-hmm. léegi mu ne pour ñun ñëw mu régler sunu problème. Mm. te moom mooy problème. te moom mooy problème bi. dégg naa la dégg naa la. yaa ngi dégg. Mm-hmm. maanaam te ñun xam nañ bu ñu demee moom li nga mi nga xam ni mooy problème bi buggut ñu wax ci problème bi mu ñu bi mu doon moom. Mm-hmm. te moom mooy problème bi. ok yaa ngi dégg. te bëggul ñu wax ci problème bi. léegi nag ci biir ñooñu mu ne. ku ci gedd nag sa yaay aye hmm, te ba léegi mooy problème ñu ñëw wax ak man. ku ci bëgg sa problème réglé. parce que moo leen teg ay problème léegi ci biir ñooñu Assane man ak Assane ñu yoxasu ne dañuy dem pour dem réglé ci suñu problème yow ak ñi ñu àndal nu nu nu noo ñuy gisee. ban bët nga ñuy xoole kaw dañoo war. yaa ngi dégg mm-hmm. donc kële. te ñoom dañu xamul ni président Macky Sall dafa am problème. xam ban problème la am. Hmm. opposition bi ni ñu dajaloo woon. loolu mooy problème am. si si. léegi bu ñu tasee rek. Hmm. dañuy wàññi problème am dootut amati. mais phrase bi mu doon waxtee nga di ko wax fii. waaw mi ngi koy réussir de. Ah? fexe ba tas opposition bi. waaw mi ngi ci. waaw mais xam nga lan mooy doonaat problème am. waaw mooy. mooy opposition bi ñooñu di dem di wuyu ji. Ah. maanaam askan wi nga xamante ne bi ñoo war a fal dootuñu considéré ti ñooñu opposition ah dañuy dem bàyyi fi askan bi waaw dañuy dem ba fi askan wi c'est que loolu mooy doon ñoom it après seen problème ok ñoom xalifa seen xalaat yépp loolu la bu ñu demee après lu ñuy doon ëllëg hmm. dégg naa la lim leen di tegal hmm. bu ñu toogee dinañ ko am hmm. bu ñu toogee ñoom resté dañuy am li ñu bëgg mais kii da leen a gëmloo ne faaw ngeen ñëw pour li ngeen bëgg ngeen soog ko am. Mhm. ñoom dañoo xeex boobu ba nëgëni ba toll fii dix mois des élections waa ji gëm loo leen ne leen léegi kaay leen ma waxtaan ak yéen moo lay wan ne la jekkadi na bu jekkoon du leen woo. Mhm. ba mu jekkee. Hmm. leen daa jekkadi. <laughs> dëgg na léegi nag ñoom buñ ñu yëgut ni waa ji jekkadi na ba dem dañuy àndandoog waa ji continuer jekkadi ñoom ñooñu ay jafe-jafe rek lañu am. Hmm. donc nag li gën. mooy ñu camper ci seen position. Mhm. moo tax ma ne fii mu toll nii sax am na lu bari lu mu koy yàqal parce que jiixi jaaxa jii rek baaxut ci moom ñu naan xalifa nii wax xalifa naa te dafa yàgg ci xalifa nii xalifa naa. Mhm. donc foofu wartoon a nangu nekk ci fii mu nekk tey. Mhm, d'accord donc loolu mooy problème am. mu jël ay responsabilités am. ah loolu mooy li ëpp solo quand ñu xam ni nag yow yaa jiite. d'accord quand même.